Le Japon et la Colombie se qualifient pour la deuxième phase de cette Coupe du

équipe bu Japon bi ak waa Colombie ñoom ñoo mujjee qualifié ci deuxième tour coupe du monde de Russie 2018 bi terangay doomu gaynde Sénégal yi nag ñoom dañoo baax lool ndax ñoom waa Colombie ñoo leen ëpp chance ba daal di leen mën a dóor qualifié waaye match bi nekkoon na loo xamante ne équipe Sénégal dominé na ko waaye mu doon domination bu ànd ak tële ndax mënuñoo dugal benn ba ñu fubalee ba 114e minute de jeu nag ci la benn corner boo xam ne ki ñuy wax Quintero moom moo ko dóor bi daal di jóg joueur Barça bi di Mina tëb ba ci kaw daal di koy mbëkk bal bi daal di dugg ci biir camp Khadim Ndiaye équipe bu Sénégal bi nag mook waa Japon ñoo tolloo ay poñ waaye règlement bu bees bu FIFA dafay wane ne ñaari équipe bu ñuy xëccoo tolloo lépp ci goal average beeg lépp ku ëpp li nga am carton yow yaay perte équipe bu gaynde Sénégal yi nag nee nañu au revoir ci coupe du monde 2018 équipe di Pologne nag moom moo juddóor waa Japon ba pare moom mu mujjee ci poula waa Angleterre nag équipe yii di waa Diable Rouge bu ñoom Eden Hazard ñoom ñoo doon dóor moo dugal bii bi mu daal di ñëw teggi ki ñuy wax Dani Rose ba noppi envoyé bal bi dóor ko benn enveloppe bu sori croisé ko seen góolu Angleterre bi di Pickford mënu ci dara lu dul xool bal bi mu romb match bi fa la yem ñu fàttali ne équipe bu Belgique bi moom mi jël raw gàddu ci pëlam moom mooy tase ak waa Japon équipe bu Angleterre bi jël ñaareelu place bi moom mooy tase ak waa Colombie Russie 2018 KSTV